bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada l yawm wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji sëñ si Sylla mi nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara sëñ Mbàkke démb ci réunion bi maag ndaw ñi maa ngi leen doon fàttali tâche yi leen di xaar tâche yi leen di xaar leen di xaar fàttali naa leen ci defar li yàqu ci pénc mi bu ñaareel ba soppi njombu téef yi bu ñetteel ba sàmm li fi baaxoon te baax ndax nga mën a baaxal bu ñeenteel bi ci laa nekkoon démb te mooy sàmmal pénc mi seen juróom juróom yooyu lim naa ci diine lim ci bakkan waaye ca la alal bokk mu ñetteel bi ci juróom yooyu nit dañ koy sàmmal alalam ndaw ñi ñi ngi séentu ci yéen ñu fexe pexe yu sàmmal nit ñi seen alal waaw ba dema ci économie islamique bu ñoom oustaz Ahmed Dame Ndiaye buñ koy jàngale ñoom docteur Babou docteur ab Lam yàlla yàlla sàmm bu nu ci nekkee ngir sàmmal nit alalam dafa am ay ligne yu bari yu ñuy tëral ngir ñu mën a sàmmal nit ñi seen alal mooy kenn ku ne fi ne bu xëyee mu ngi xëy ci dara ni ñuy def mooy loola muy xëy ñu sàmmal ko ko moom la gaa yi wax ñu sécuriser ko ko kenn ku ne la ngay xëy waaye mbokk yi di xëy di xëy di xëy di di dajale dajale dajale waaw hmm? ba am sa trois mille euros jàpp quatre mille euros ndeysaan ci bitim réew yónnee ko Dakar ñu teg ko ci loxol muur xujja mu ne ko tépp nga ñëw ne muur xujja sama xaalis sa yaay ne la xaalis jëru ko jar na lu ko ëpp jar na lu ko ëpp waaw ne ca ne ca Italie gële wala Espagne wala nga nekk Japon wala <laughs> wala nga nekk Suède dëkk yooyu di tawte neige bi di la jàpp ngay teel a xëy ah sa yi yàqu nga sori sa njaboot doñ doñ doñ doñ doñ loo am ndeysaan lekk ca tuuti denc la ca des yaag moom yaag moom ni uru naqaree dence ba nga denc ci lu mat ah euh, six mille sept mille euros nga xam ne daa du dub xaalis sax nag waaye tane na nga gàddu ko indi jox ko sa sa frère Mor Khoudia mu ne ko tépp mu ne moom mi ngi tëdd fii de di naan ataaya eh, déglu sound mu dem la nga indi lépp mu ne ko tépp nga daal di jóg sa yaay ne la xaalis jëru ko am na ci penc mi ñoo xam ne fi ne li leen dal ci wàllu wàllum wéradéeg ñoom seen yooyu yu mel noonu moo leen ko teg benn sa nijaay moo naan xaay ba tépp wala sa pàpp waaw waaw ni ko tépp <laughs> léegi nga xalaat nag ni nga ci sonne woon léeg-léeg da nga yónnee pour ñu lay tabaxal ndekete waxuma la tabaxal waaye birig sax teguñu ko la ñu jënd ciment ba nga xëy ñëw di laaj kër gi mas naa ci gis benn théâtre ndeysaan ñoom Lamine Ndiaye di ko théâtre waa dara yu kocc ala kulli xaal nit dañ koy sàmmal alalam gis nga sàmm alal tax na sunu borom mu ne ku sàcc daggal leen ma loxoom ah mu ne maa la ko wax ku sàcc lim sàcc mat onze mille cinq cent ngeen def ngeen def euh, gëstu étudier gis ni kii dafa am filigu sàcc rek tax mu sàcc yàlla mu ne daggal leen ma loxoom duraatam bu sàccatee daggaleel ma tànku góos ba waaw bu sàccatee ngeen daggal ma loxo bu góos xaw ma nag buñ daggee ñett yooyu dana sàcc te mu déete <laughs> waaye du yomb Iran Ndaw nee na du yomb waaw mon grand frère nee du yomb yal na ko yàlla yokku wér <coughs> du yomb de ak ala kulli xaal loolu ci la bokk ba ci teg mooy sàmmal nit ki am xelam hmm? yéen ndaw ñi bokk na ci taas yi leen di xaar mooy ñu fexe ba mën a sàmmal nit ki am xelam sàmmam xel nag bokk na ci fexe ba sàngara dorog yàmbaa mu bañ dugg ci sunum réew waxum laa nag ñu koy légaliser waaw def ko ni mburóog caaf ci dëkk bi loolu de bu ñu ko defee àdduna ju tukkale doon xale yi loolu ci ci taas yi leen di xaar la bokk beneen tâche bi mooy sàmmal nit ñi seen der ay boobu ci la bokk waaw sàmmal nit ñi seen der as gor kenn du yàq deram as gor kenn du yàq deram Pape Makhtar Kébé nga jarbaatu xaaj Abdul Aziz boobu al euh, alxaaj Abdul Aziz Dabaax dañoo mas a nekk ca burdu booba sëñ Mansour boroom daar ji mooy alxalifa ndeysaan <laughs> sunu sëriñ borom daar ji ci waaw nga xam ne boo ñëwee mu ne la foo toll nga ne ko téere sàngam ban paas paas sàngam nga wax baat ba mu ne ay ca dem ba mu yàgg mu ne la ma demam nga ne ko doy na <laughs> mu jàll ca ka ca des di sànn waaw benn sëñ bu mag ci Sénégal nee na ma ci moom laa jànge Eh, ismulayil azam jàng ci moom ismul jalaal dem ñibbi waaw te ku ci yàlla mayoon loolu la ndeysaan booba sëñ Mansour toog Pape Makhtar Kébé yor xutba ba ñu agsi ci waaw burdu bi baatu yar sa bakkan wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi rabbaay si Mansour ca xutba ba mu cay nekk jigéen ju nekkoon ci dëkk sàngam waa dëkk ba jàppe ko jigéen ju baaxut waa dëkk ba yépp jàppe ko jigéen ju baaxut ndeysaan ba mu génn àdduna kenn ca ña ko doon sang teg loxoom ca yaram wa daal ne ko bu yàlla bariwutoon sutura wala sa cër yi di wax kon di nga yàgg weeru li ngay bon loxob ki ko doon sang taq ca yaramu kam doon sang waaw ki muy sangkat ab néew la di ko robi ci kanam loxo ba taq ci kañ lay dañ xam waaw xam ba ba ba kooku doon sang te wax-wax ji loxo ba taq ca dañoo mujj ilimaan ja wax ne nañ ko dóor juróom ñett fukki yar ndax daa tuumaal as gor ñu dóor ko juróom ñett fukki yar loxo ba door a dañ te loxo booba nam ca kole woon siso mënu koo dindi lañ seet waxi noppi te docteur yi ñoom itamit noonu daa tuumaal as gor te ab néew la tuumaal mu ko fekk gor soo xam ne si tabarkàlla gor su set wecc nga jël sa kàddu rey ko ci rey ko ci internet bi nga rey ko waaw nga xam ne fi ne moom nekkatul il est mort waaw il est mort tué par internet moo tax Serigne Cheikh jàngalekat ba daan wax ni balaa kenn wax musuma rëy nit nañ dem ba yomal xiyam ban wan nu listub ñi dee ak li leen rey da fa gis ñoo xam yi ab baat leen rey benn baat lañ leen wax ñu dee jamono yi la dañoo jël jenn waay ne ko sa jarbaat bi yaa ko tëdde sa jarbaat bu jigéen mu ne nga ne lan ñu ne ko waaw ne ko ca kaso ba raw ne ko ca kaso ba raw kër ba mu génnee ci guddi la faatu te xaruwut te xaruwut ndeysaan moo tax nit dañ koy sàmmal ab deram li ci alxuraan wax doy na waar alxuraan nee na képp ko yàq deram yaa ngi koy lekk képp ko yàq deram yaa ngi lekk aw yàppam hmm? waaw waaw la ma waxoon sama bàjjen mi soxla jóg yaay Maodo mu ne ma bàyyi naa jiw di sànn sàll ma ne ko labbayka mu ne ma bàyyi naa jiw <laughs> déet waaye bàjjen mu ne maa la ko wax de su ma naratee jëw ni di jàkkaarloo mu wax ko ko mu dóor ma pes sax moo ma gënal jëw ko li nga wax ci jëw nii ma ne ko loolu de moo ci nekk ndax yàlla da nee na kuy yàq juróom bi yaa ngi koy lekk yaa ngi koy lekk de waaw a yuxibu ahadukum an yaakula laxma axihi mayta fa karitumu xale yi juróom yooyu mooy ñeenteelu tomb bi waaw loolu moo doonoon suñu réunion maag ñoom maag ñoom léegi nag <laughs> ñu ñëw ci question réponse yi waaw ñu ñëw ci question réponse yi maa xale yi waaw réunion ba jeex na ndax réunion ba gàtt la tabarkàlla foofu la yem waaw ñu ñëw nag ci question yi ba yi xale yi di posé <laughs> waaw xale yi daal ñoo njëkk a posé question kon léegi luy lislaam loolu mooy seen première question waaye nag c'est une question pertinente professeur Djibi luy lislaam loolu la gone ya laaj ndax luy lislaam day tax xam ñuy ñan ñooy almuslimuun day tax xam kan mooy almuslim waaw xam naa ci suñu tafsir incha allah bu nu jeexalee xaalatil arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslam bu ñëwee ci baatu aslam naa allah xam naa danañ ci danañ ci gis dara ci lan mooy lislaam waaye lislaam lislaam mooy ma leen xale yi ba ko kenn posé bay mbay <laughs> kon léegi luy lislaam mooy leen lislaam mooy diini ji taxoon yàlla yónni yónent yépp yàlla yónni yónent yépp la tàmbalee ci nooxun ba baa ngi ak si muhammad li liñ doon def ñoom yónent yooyu loolu mooy lislaam Hmm? waaw waaw loolu mooy lislaam waaw noohun tabax na ca euh, Muusa tabax na ca wala Ibrahima tabax na ca Muusa tabax na ca Isa tabax na ca Muhammad tabax ca muy juróomi juróomi lettre yi nga daal di am islaam alif gi siin gi laam alif gi waaw ak miim gi muy islaam walla al islaam laam alif siin laam miim inna diina indallaahi alif laam siin laam alif miim mu ngoog muy juróomi araf <coughs> mbokk ma ma ko waxoon ci jamono ndeysaan <coughs> lislaam ma ne leen su ma leen bëggee tontu ci luy lislaam dañuy ànd maag yeen ñu dem Éthiopie ñu dem Habasha fekke ji waxtaan waxewoon diggante Jaafar ak malikul Habasha waxtaan waxe woon diggante jaafar ak najaas yi ñun ñépp nañ ànd dem Éthiopie ñu fekkee ji waxtaan wa wu am solo woowu lan ma sabab waxtaan wi mbokk yi keroog nag bi may tontu xale yi kes réponse bi kontaan naa loolu ndax ni ma gisee xale yi def ko kenn ku nekk jël bigam def ci loxoom teg ko ci sikki moom waaw ni ma xale doon dégloo daal vraiment ci réunion bi sama me fait play beaucoup play beaucoup quoi <laughs> waaye yonent bi dafa woote lislaam ca Makka kër gune tàmbali am muslim kër gu ne tàmbali am muslim yenn kër yi am ñett yenn kër yi am ñaar yenn kër yi yenn kër yi ah waaw waaw ñi nga xam ne ñoom la yonent bi di yar yaru yar boo xam ne bi kenn du ci xas sa baay mbaa ngay xas sa yaay nit ñi jaxle bëgg nag xeex affaire bi te ndekete njaga mbay nee na suul kër du ko teree feeñ di san yal na ko yàlla jéggal dëkk bi metti lool kenn ku ne bëgg sa doom génn ci li muy li yonti bi di woote ku ne bëgg ko boo rombee ci mbedd mi seen kuñ yeew seen kuñ juutal kuñ teg aw xeer kuñ tëral ca naaj wa ah kuñ kuñ yeew ki jëng mbedd mi yépp fees ko ah amut yonent bi romb leen ne leen muñ leen loolu dong la mën sabran ali ali yasir fa inna maw'idukumul janna waaw xale yaa ngi déglu ma tontu leen ci luy lislaam ñoo ma ko laaj bàyyi mbay bàyyi mbay ma ko laaj waaw bàyyi mbay mu ndaw laa wax bu mu bàyyi mbay ma leen day sànn yàlla na yàlla yërëm ma ne leen bi yëf yi méttee yonent bi ne leen génn leen ci àdduna si ngeen tasaaroo bés a ngi ñëw ñu dajewaat saaba yi kër bi ñuy dem jooy métti na ndax kilifa gu mel ni yonent bi sore ko jigu leen ndax dañ koy namm jooy métti na mu tàpp tàppale leen dem leen rek bés a ngi ñëw yàlla dajalewaat ñu ndeysaan yépp jooy ba mu ba mu jël kaalaam ndeysaan teg ci bëtam gaa ya dem bi gaa yi demee ba àgg xabasha daal di buur ba buur bi ne leen fu ngeen jóge ñu ne màkka lu leen tax ñëw ñu ne suñu bokk ñu bundu buur bi wutal leen fu ñu dal dal yu baax wutal leen reer gaa yu kontaan waaye ñaar jóge màkk rek dab si leen waaw ñaar jóge màkka rek dab si leen ak si daal indil buuru buuru xabasa xaaj bu bari ak tuuti or ne ko nag waa màkka noonu yónni ñun ay ndaw lañu di dox ci wàllu diplomatie dafa am gone yu dawee seen réew ñëw fii yàq nañ seen réew bëgg yàq seen réew mi yéen ay terroriste lañ xañ nañ jàmm waa Makka nar leen a xañ jàmm waa Makka nag yónni nu ñëw pour jël leen ndax ay ndaw lañ delloo si leen lisaan buur ba ne leen ah ñu ne waaw mu ne ah, loolu di doy na waar waaye gis nga mbokk yi ma ne xale yi penc mi toujours day am ñu sérieux luñ def lu sérieux lay doon te àdduna lu leen ñuy jàdd li ñuy wax mënoon na ne ah dem leen ñu génn ci biti bu doon tey bu doon tey ba muy tudd nun lañ koy defee ci wàllu diplomatie diplomatie kenn du ko doxalee noonu mukk najaasi naa ah, baax na bu dix heures ngeen ñëw mu bàyyi gan ñu nelaw ba ndékki ba noppi sangu mu woolu leen mu woolu gan ñi jóge woon màkk te yonent bi yebal leen najaasi yi ndeysaan moo tax kër ba mu faatoo yonent bi tàgg ko ni ñaanal leen ko kaay leen nu jullee ndax dugg na ci lislaam ndax ci discours am bi sax feeñ na ci korog waaye bi ñu njëkkee ba noppi à partir de dix heures ñu tase mu woo leen ñu ñëw ñu agsi rek mu woo ñaar ñu jóge màkka ñu ñëw saaba yi xool leen xàmmee leen ñoom tam ñu xool leen xàmmee leen waaye bi ñu xoolee saaba yi xam nañ ni kenn tiitu ci diggante góor ko jigéen waaye najaas si waxul ñu jóge woon màkk joxu leen parole ñoom lañ waxoon démb wax nañ ko point du waxaat fii dafa ñëw rek moom najaas yi daal di toog fi mu war a toog bëkk néeg yi wër ko secrétaire yeeg ñi war a bind ak ñoom seen yooyu wër ko mu xool saaba yi ñoom ñëpp ñu taxaw solu rafet yiw waaw yiw taxaw taxawaay bu jëkk bi mu dugg see mboolem ña fa nekk ku ci nekk sëgg saaba yi ñoom taxaw rek ñaar ñu jóge màkk ne voilà gis nga ñëpp ngi lay nuyu ñoom nuyuwuñ la najaay si ni leen waaw yéen lu tax nuyuwu leen ma ñu ne ko nuyu nañ la de ah li seen morom yi def lu tax defu leen ko ñu ne ko sunu yonent ba moo nu koy aaye ah mu ne waaw ah, ñun suñu yonent moom moo koy aaye Najaasi daal di bàyyi débat boobu ne leen lu ngeen joteeg seeni bokk lu ngeen joteeg seeni bokk mbokk yi bind keroog ba réponse booba laay jox xale yi tey moom laay jox Baye Mbaye mi posé question bi luy lislaam saxaaba yi dañu ne ana jaafar jaafar ibnu abi talib mu ne maa ngi nii ñu ne ko tontul tontul najaas yi ci question bi lan moo nu joteel ak suñuy bokk jaafar daal ne ko ayyuhal malik lisaan ayyuhal malik kunna ahla jahiliya na'budul asnaam wa naakulul mayta wa natil fawaish wa naqtawul arxam wa nusiul jiwaar wa yaakulul qawiyu minna addaif xata bacata allahu ilayna rasulan minna nacrifu nasabahu wa sidqa wa amaanatahu wa cifaafa fa dacanaa li tawxidillah wa an laa nushrika bihi shay'a wa naxla maa kunna naabudu min al asnaam wa amarana bi sidqi al xadis wa adaa'i al amaana wa silati rahim wa husni al jiwaara wal kaffi an al maxaarim wad dimaa wa nahaanaa an al fawaahis wa qawli zuur wa akli maali al yatiim wa amarna bisalaati wa siyaami fa amanna bi wa saddaxna wa xaramna ma xarama alayna wa xalalna ma axalla lana fa taadda alayna qawmuna fa azzabuuna wa fatanuuna an diinina liyarudduuna ila ibaadi al awsaani fa lamma qaharuuna wa zalamuuna wa haalu baynana wa bayna diinina xaraj naa ila biladik ayuhal malik waxtar naaka ala man siwaaka ayuhal malik wa rajaw naa an la nuslima indaka ayuhal malik mbokk yi ñaanal leen ma ma dund ba leen di ngeen dund ba leen di te ñu weesu ko ma firi leen discours bi xam naa xamagu am na ñu xamagu lu muy tekki waaye seen yaram daw na sax nag ci discours jaafar bi nga xam ne moom laa jël pour tontoo ko bàyyi mbay ci lan mooy lislaam